Qui a mis de l'avant un nouveau président de la République, élu au premier tour, qui a compris les enjeux euh, de cette élection, le désir de changement. Euh, c'est également un sentiment d'espoir de, sur euh, l'avenir de notre pays, l'avenir de nos institutions, parce que ce n'était pas évident. cette élection a été incertaine du début à la fin. Et donc euh, voilà le sentiment que nous avons. Et nous souhaitons au nouveau président, M. Bassirou Diomaye Faye, euh, plein succès pour euh, la mission qu'il attend. Ce que je retiens de son discours, c'est qu'il a bien compris le désir de changement et le besoin d'indépendance euh, de la justice et de façon générale de la réforme des institutions. et également le besoin d'amélioration des conditions de vie des population Engagement pour lesquels nu nous sommes tous battus dans l'opposition, mais aujourd'hui c'est le Sénégal qui a gagné. Voilà. waaw lu ñu mun a wax mooy tey bésu bànneex la ndax Sénégal tolli woon nañu ay guddi yu lëndëm ci euh, élection yi jongante yoo xam ne yii tey ñu ne du am ak du am kii dina bokk ak kii du bokk mu am ci ay violence am ci ay nit ñu ñàkk seen bakkan ñu ñàkk seen alal bu ñu demee ba def ko ba mu sotti nii ci jàmm ba ñu am président de la république bu bees ba def cérémonie institution yi taxawal ko euh, ba jox ko lenge yi loolu dañ ciy sant yàlla bu baax di féliciter nag euh, monsieur Bassirou Diomaye Faye nga xam ne mooy sunu nouveau président di ko ñaanal yàlla mu réussir mission euh, di jàpp rek ci discours am que xam na ne élection bi mu am premier tour Euh, dafa wane ne sénégalais dañu buggoon changement et changement boobu euh, bàyyi na ci xel bu baax ci wàllu justice ci wàllu institution yi ci wàllu condition de vie wu sénégalais yi ci wàllu xëy yeeg yooyu jël na engagement ci waat bi mu waat pour def tout pour que loolu jëm kanam def tout aussi pour sunu diggante ak yeneen réewu Afrique yi euh, jëm kanam boo gisee présence su yeneen chef d'État yi dafay wane ne wax dëgg yàlla dimension bu am solo la merci beaucoup. waaw non ñun ñun suñu xam-xam moomuñu ko Sénégal moo ko moom uh-huh. école publique la ñu def euh, ni ñu ko daan defee ci administration bi rek uh-huh. euh, lépp loo xam ne lii euh, nit ñi soxla nañ ko ci suñu xam-xam bi nga xam ne moom moomuñu ko Sénégal la ko moom na dëppoo rek ak conviction yi ak yoon bi nga xam ne fa la ñu bëgg a jëmalee Sénégal merci beaucoup ah processus bi moom dañ ko war a xoolaat du début a la fin wax dëgg yàlla loolu moom dañ ko war a tëggaat totalement parce que euh, yàlla ñu defal sutura mais lépp mënoon na am lii moom lu ñu war a xoolaat la ci institution yi depuis parrainage bi fichier électoral bi euh, affaire u carte yeeg affaire u supervision élection yi lépp lépp lañu ñu war a xoolaat waaw génn nañ ci rek waaye wax dëgg yàlla yàlla ñu defal sutura waaye lépp mënoon na am. waaw man léegi président de la république la am moom mooy Bassirou Diomaye Faye voilà. <laughs>